maskani Tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat dama wóor ni Tuuba ci kanam mii moom mhm. lu sëñ Tuuba bëgg ci Tuuba mhm. baat bi sax suñu néew waaye ba demul faw sëy bi mhm. Tuuba ci kanam mii dana ko dana ko dundal dana ko sàmm ba ci ah, kanam borom lépp def moo xam ci nguur la war a jóge xam ci xilaaf war a jóge lépp luy ci def rek Touba ca kanam boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaaree mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 bu dee ci banque yi ubbil nañu leen ay compte fépp foo ci dem itam di mën a joxe sa barkeel képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 33 978 25 37 76 268 28 28 78 544 33 33 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam